dugal sen de bi rek te dafa am ñu critique am ñoo xamni lu duñ ko nangu mu rek muy rek di di l'islam la lan comportement lan conduite jàngale na état de conscience loolooy diine di ay jikko rek boo ay lu utammima makaarimal axlaaq yàlla ay jikko fi nekkoon mais jikko yi baaxuñu woon yàlla yónni ma tànnal may jikko def ko ci man ba pare nag ni ma demal nga wesaare ko ci àddina yenent bu ñëw am na lu ko yàlla digal waaye yow mi damay yeesal jikko yi muy rafet budda mimma makaarimal axlaaq yonent bi ndax bu ma leen min asakwa asal naa alal mun naa bari naa bari naa min asakwa bari naa génn nañu min asakwa ca njàqare asal naa jotal nañu